Euh, donc euh, nit yi ñu wan lan day représenter pour yow donc la première photo on affiche euh, à l'écran donc ñu la la très grande dame. ki mooy sama maam mère Fage Fall. Mhm. kii moo def ci man lépp. Mhm. moo koy xam kii moo ne ma mar naan bu mu la tax naan peut-être fépp foo dem demal at ngor at jom at fula at fayda. Mhm. ñaanal naa la. lépp loo amul ci yow la c'est pour ça du ma tiit du ma ragal. ndax fekkee na sa njëriñ. fekke na ko ba yóbbu naa ko Makka quatre fois. alhamdulilah. te avant ma koy yóbbu Makka dafa ne ma boo si boolewul sama wujj yu di ma dem. c'est important l'autre la. papa. Mm. ki moom mooy pulo bu ñàmbur booy pulo. Mm. Mm. il paraît que man awma chance nag seetaan que. mais il paraît que def na ay jaloore yu mag payi ñoom euh, Golbert Diagne ñoom El Hadj euh, ñi ko seetaan ñëpp même payi ba léegi sax dañ naan sa papa la dàqoon football fuuf. Mm. ma ni leen euh, ñi ko seetaan en couleur wax nu ko parce que yéen noir et blanc ngeen ko seetaan. waaw <laughs> moom ay moo moo nekk Portugal. ba tey mm. ba tey. yéen a déggante. Mm. bu baax. c' est l' un de meilleurs amis. très bien on n' pas vécu ensemble mais nag comme ni ma koy waxee. bu ma déggee nit ñi naan El Hadj Diouf fédération ne ne ne mat fédération sax neex nañ jubóo mais peut-être que man kii neexul woon ñu jubóo. te tey jii juboo nañu nekk benn. lii moom mooy àdduna. c'est ça qui est important. la c'est leur équipe de Ndiambour. Hmm. Ndiambour bu Louga. Ndiambour bu Louga. Hmm. ñoom Ibou Ndaw Diaw Ibou Ndaw Kébé. Gaynde Bara la grande équipe de de de de de Ndiambour. en rayures voilà moo nekk en noir blanc. peut-être que booy jouer extérieur. mën nga am nga droit extérieur laa seetaan am nga droit sol maillot bu l'autre photo Vieux Diouf. pareil ñoom la ba léegi. Uh-huh. mais Ndiambour yow lu la ci da nga football wala. ñam sama papa moo fa nekkoon. je pense que papa est de Louga comment mon père est de, non mon père est de Thilé Boubacar. voilà dañ ko jëli woon mu ñëw jàng si Louga après su la doon joué Ndiambour. ok très bien donc euh, Vieux Diouf photo yi jeex na. Euh, bëggoon nañu <laughs> benn photo Pape Bouba Diop euh, donc aussi. Ah. Bruno mhm. Metsu. en quelques mots. pour Metsu en quelques mots. Euh, fii laa koy euh, ñaane les autorités pourquoi pas pourquoi pas stade bu bees bi bu ubbee ñu defal leen benn benn hommage bu rëy ñoom Bruno Metsu Jules François Bocandé Pape Bouba Diop hommage bu rëy pour l'ouverture invité toutes ces grandes légendes yi nga xam ne tey jii partagé nañ ñoom terrain yi muy ñoom ay ñoom Samuel Eto'o ñoom Didier Drogba pourquoi pas ñoom Ronaldinho ñi nga xam ne tey raccroché nañu mm. en faire une très belle fête du sport sénégalais sargal leen ñoom ñi nga xam tey jii mm. nekkatu fi et je crois que euh, jour boobu ñu koy def sénégalais yëpp ak africains yëpp dinañ leen fàttali ko. est-ce que am mm-hmm. nga parce que si la ñu bëgg a inaugurer stade le 22 février 2022 yaakaar nga ni war na mën a sotti. de toute façon ah, c'est bien euh, avancé bien sûr bien sûr war sotti de toute façon euh, kii di état. ak ah, fédération bu nu waxee ak ministère ak fédération bu ñu waxee ba pare le plus important c'est mooy mooy jot nit ñi téléphone. ñu préparer wu ñëw et ñu def ko c'est ça le plus important. ñuy tabax sax stade bi ñooñu dañoo xarañ bu baax baax <laughs> donc dernière photo. sunu nga ak tabax. Euh, Bokande waxuma tuuti ci moom mais bu nu fàttaliku nag. Mm-hmm. Euh, équipe nationale Sénégal bu nekkoon li mu nekkoon Bokande lu bëri la ci woon. Mm-hmm. parce que moo daan régulariser affaire moo nekkoon euh, nekkoon bu waxee ba ni sa y est fini. te bu ñu daan football yi ba nga xam ne tey jii dem rek a des. moom mooy tëjoon ñun waxante ñun. parce que en un moment donné c'est vrai que Bruno tubaab la xamul culture bi bu baax a baax at lu mu ko xam-xam ki bokkaande mu ko gën a xam. Mm-hmm. à un moment donné bokkaande moo nuy ñaax. Mm-hmm. gaynde gi nekkoon ci moom moom moo ko daan jox. Mm-hmm. d'accord la dernière photo de Pabouba Pabouba Diop. Pape Bouba un lion très courageux. Pape Bouba lan laa mën a wax ci moom. donc fii quoi. Pape euh, Bouba dañu dund lu bëri parce que mm-hmm. on était à Lens encore man maa ko dalal. Mm-hmm. maa ko dalal à Lens maa ko wan kër gi à Lens équipe nationale aussi man maa ko fi dalal euh, Pape Bouba du ma def rek lu dul euh, ñaanal ko yàlla na ko yàlla xare àjjana. Mm. suuf woyof ñaan nga fekk ci bàmmeelam. te sénégalais bu nekk bu jullee nañu continuer di ñaanal ñii parce que. Mm. pour dund ak ñoom lu bëre mérité nañ ko. macha allah merci encore. Euh, heure 13 minutes fii dañuy euh, yem ci déclicu tey bi.